salaamaaleykum mbokk yi yéen ñi ñu suivre ci seen site internet luttetv.com ñoo ngi leen nuyu di leen ziar tey nag ñoo ngi fii géejawaay wala parcelle diggante géejawaay ak parcelle ki ñu fi fekk nag bu ngeen jàkkaarloo ak moom xam ngeen ko mu suñu per Omez doon tàggat tafatin tàggat na ko lu toll ci 4 ñu jëm ci benn combat mu diggante Balla Gaye numéro 2 ak Modou di combat ñaari technicien moo tax nag Lutte TV di déplacé wu di seeti techniciens yi ñi nga xamante ne mën nañ laa wax ci làmb ji loo xamante ne du dañ ñu dékk leen suñu micro laaj leen ñoom lan lañ xalaat ci combat bi ak nan la ñu gisee ñaari mbër yi kenn ngi nii koo xamante ne yaakaar nañ ni xam-xamam doy na sëkk ci làmb dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyu ñuy suivre Lutte TV point com permanent ziar. Euh, maa ngi lay fay di gërëm di la sant di rafetlu sa teewaay surtout que nga demandé aussi euh, ma participer ci li nga xam ne tey mooy analyse bi nga xam te mooy lamb ji ñu jëm donc en tant que sportif donc nungu naa à chaque instant di partager sumay sumay connaissance et puis di sàkku aussi ay ay ay ñaan et puis di xaar aussi ay certaines critiques parce que loolu ak ak ñoom ñoo ànd suñu liggéey. comme ni ma ko waxee sànq rek yow yaa doon entraîné Tapha Tine ba yaakaar naa comme combat ak Balla Gaye numéro de yow yaa ko andi da ngay confirmer loolu. bon effectivement Tapha Tine euh, liggéey nañu depuis cinq ans maa nekkoon le directeur euh, technique en même temps le préparateur physique donc dem euh, ak moom pendant cinq combats de deux mille 2008 en 2000 en 2013 donc am naa ci quatre victoires ak benn défaite. donc euh, depuis loolu nag depuis 2013 donc euh, ci lañu ci et je crois que en tant que technicien aussi que muy discipline yëpp donc un entraîneur aujourd'hui a besoin soit certainement de changer ou bien à ce mu dem feneen mais euh, làmb dafa nekk loo xam te nii dafa spécifique par rapport ak yenn sport yi jàpp nañ ne boo nekkee ci équipe war a mën a jógee alors que comme ni équipe yi def équipe war nañ def au moins de de changer jóge fii dem fële donc def mercator donc war na mën am ci làmb donc làmb dina dem ba toll foofu mais fa jógee en 2013 2014 ma dem en tant que directeur technique kii euh, Lamba mi bu TFM organisé woon ah, au niveau de Ndoukoura à donc concept bi ñu defoon ma liggéey si ak ñoom ba mu jeex donc euh, deux ans ji des donc ma continuer nekk en consultant di partager avec les différentes télévisions qui sont à la place et en ce moment euh, depuis daaw en 2018 la saison ma nekk dans la direction technique régionale de Dakar en tant que directeur technique ànd si Ibrahima Mbaye yóbbu l'équipe de Dakar à Kolda au drapeau du de l'État yàlla dimbali ma aussi euh, liggéey bi ñu liggéey ak ñaan ñu ñaanal ñu indi drapeau chef de l'État ci ici à Dakar depuis parce que 22 a 20 24 ans de cela absence amuñu ko woon yàlla jàppale ñu donc euh, donc jusqu'à présent daal maa ngi jàpp ne jusqu'à présent maa ngi direction technique régionale au niveau de la commission technique du CNG de lutte. du CNG bu war a am diggante Balla Gaye numéro 2 ak Modou ci physique. seen physique laa bëgg nga njëkk see ñëw ñoom ñaar nan nga leen gisee. bon physique bon pratiquement li souvent ni ñuy wax physique dañu gis xam ne peut-être physique day nekk ci ci ay fànn fànn bi mooy lan ay préparation préparation bi d'accord dafa nekk la préparation. générale ak lu ñuy wax la préparation spécifique di nga xam ne nii moom nga soxla donc ci préparation générale bi dafa am li ñu xam ne dañuy wax mooy euh, l' endurance donc travail endurance nga liggéey ci endurance fractionné mooy endurance boo xam ne dañ koy dagg pour que nit ki mën am temps de récupération wala nga am endurance continue a soxla parce que autant que combat bi di duré ou bien sport bi ngay boobu moo lay téye ci forme de résistance yi nga xam ne ci nga jëm mooy li ñuy wax la résistance résistance volume, la résistance intensité et la résistance récupération. intensité moo di lan pourquoi parce que nit ki day soxla à chaque instant di def action contre action mouvement sur mouvement déplacement donc donc bu intensé donc il faut nga am aussi des formes de résistance de récupération par rapport ak action yi nga mënee temps de temps de temps de travail ak temps de récupération loolu alerte bi dafa war dem am ko mu permettre la nag léegi nga ma dem ci ay de d'exécution ay réaction ay déplacement ay piston ainsi mooy travail physique mais boo seetee physique aussi en même temps yoo xam te donc mooy les lois de la physique donc mu nekk lu ñuy wax au niveau de la pesanteur mooy li nga xam ne day jóge ci kaw ëmb li ñuy wax la masse gravité bi nga xam ne moom la nit ki yor di war ko mën a bëree par rapport à sa taille par rapport à son poids. Mm-hmm. côté physique bi ba léegi dama ciy des ak yow ñu gis ni Balla Gaye dafa dafa mel ni poids am ko wàññi par rapport ak Balla Gaye bi ñu doon gis yow loolu nga gis wala. Non, en effet, bon, bon, Balagay, euh, depuis que j'ai commencé son plan de carrière, donc euh, jusqu'à ce que Mouibere ak Yekini, donc physiquement, Balagay, il était bien prêt. Mais nous, que on a changé morphologiquement, donc maintenant, peut-être ci wérgu yaram donc au niveau de la santé donc xëy loolu yow moo taxoon mu mu amaat benn masse volumineuse mais masse boobu aussi mooy moom bu mu gisee xam ne jëm nañu ci bu am solo bu xam te ne toog na deux ans am deux contre euh, euh, comment ça s'appelle encore euh, Eumeu Sène donc après ces deux défaites contre euh, Eumeu Sène ak bi ñuy des contre Bombardier donc jàpp na donc war na a liggéeyaat et puis Guédiawaye aussi sas ko teg ko lu metti ba mu comprendre def conscience en lui que ne donc fu mu jëm nii du foofu mais mu taxawaat liggéeyaat liggéey au mois de mars boo seetee mars ak léegi je crois que ça doit de de de mois sept mois donc mu bëri ci pendant minutes donc ça implique ne jot na liggéey liggéey waxante tey yaramam attan na ko liggéey na ci ba bëri trente minutes yàlla may ko su ndam hmm. mais donc mu amaat encore benn échelon bu muy def mooy fourchette dafa nekk fourchette bu am solo di yéeg en puissance donc euh, Modou Lo il a monté vraiment en puissance donc puissance boobu monté Balla xam te ne donc il a un adversaire sérieux donc mu dem liggéey ci donc bi mu demee euh, INSEPS dafa trois trois mois ñibbi si tout le monde a vu que ne Balla aussi il a changé encore mu ngi dellu si waat ci Balla Gaye bi ñu xamoon. mu ngi dellu si waat ci Balla Gaye bi ñu xamoon Modou Lo tamit ñu gis ni côté physique Modou Lo quatre wala cinq derniers combats yëpp. chaque instant rek même form physique bi. pardon lay andi même forme état bu muy andi noonu lay andi day maintien forme am duñ gis moo loo jël benn volume bi lan moo tax loolu. bon je sais pas parce que comme il a dit dafa feebar parce que ñu gën a feebar aussi. moo Modou Lo Modou Lo. ah Modou Lo. gisuñu ni dana jël benn pois par rapport ak yeneen mbër yi nga xam. actuellement nii waaw. non Modou euh, boo gisee dama wax ne dafa am benn fourchette bu am solo par rapport ak graphique bu mu yor. depuis bi mu daanoo ak Balla Gaye donc combat ji des yëpp da ko gérer vraiment avec un état physique bu baax ak un état mental bu baax. donc bindam tax ko réy réy bi sol mais masse musculaire bu ñu bu ñu ko jaawalee souvent ak ak masse de graisse parce que masse musculaire dëgg ak la masse volumineuse d'un corps donc am na différence mais Modou Lo dem na ba xam ne toll na nekk na une personne assez souple assez musclée mais actuellement nii ma ko gisee euh, lors des deux dernières sorties gis naa ne au moins xaw na développer un peu par rapport ak ni mu meloon parce que nit ki aussi ça dépend de son de son staff mooy xel xool li ko arrangé mu mu ko mooy seet mu ko arrangé mu wàññee ko liggéey bi nga xam te moom moo ci war donc ñoom ñooy koy defal une certaine planification d'entraînement pour que au moins le jour J mu joxe au moins un renforcement un rendement et puisque ñoom ñaar ñëpp dañ def ay renforcement de capacité kii dem euh, en France dafa 3 mois kii dem en Espagne dafa 2 euh, mois. donc ça implique ne renforcement de capacité boobu tey day nekk loo xamante ne tey c' était à l' approche du combat et à l' attente bi nga xam ne tey moom la le Sénégal di xaar. Mm-hmm. comme ni ma ko waxee rek andi nga Balla Tapha mu bare ak bala Gaye numéro 2 bu andi woon Modou Lo mu war a bëre ak Balla Gaye lan nga koy bëree loo. mu bëri loo ko kan. andi nga Tapha mu bëre ak Balla Gaye. su fekkoon Dimas yow yaay. non non c'est différent non attendez c'est différent parce que on ne peut pas être juge et enfin yor un nekk entraîneur d'un d'un lutteur mu bëri un combat donc nga bëgg joxe ay consigne beneen ki non ñun on suñu liggéey ñun dañuy xool li nga xam ne dañ koy analyser. xool liy apporté d'abord si à partir de l'analyse les forces les faiblesses opportunités yi ak menaces yi loolu moo suñu suñu suñu suñu wàll mais pas que mën a mëdloo nii la war a bëree yow war nee la bëree. lan mooy mais certes que am na li ñuy wax loo xam ne ni mën nañ koo ko définir su les techniques de corps. mooy le les les les gardes d'abord ñoom ñaar ñëpp ay gardes à gauche lañu. donc mais seen garde aussi ay garde debout lu ñu def rare à des moments ñu def ay garde moyenne et garde moyenne et bi da lay permettre xëy na être mun yóbbu la lutte au sol nga mën def une garde moyenne donc li ñu des les distances les distances tey la distance bi nga xam ne sori na bu dee avantage bala moom lay doon bu fekkee ne la distance rapprochée mu lay doon mais c'est par rapport ak seen taille. Hmm. ak seen poids ak seen volume. donc loolu lépp nekk na nga xam ne ni donc c'est des consignes et puis à partir de ces distances de de de ces de ces de nga xool ne maintenant les distance ak angle yi nga xam ne nit ki moo la war mën a bëree par rapport ak consigne jox ak distance bi ak attaque bi ak fi nga xam ne ni yow boo fa duggee ni nga am force de vitalité mi nga xam ne nii tey boo boo fa boo fa amee tampon am man manœuvre de corps boo fa jàppee au moins dina la permettre que liggéey. point fort Balla Gaye ak point fort Modou Lo lan la. no point fort Balla Gaye tout le monde sait ñoom ñaar ñëpp ay ay liggéey ay ay ay lañu parce que le point fort donc su ci lutte dañu naan bëre dóor bëre ak dóor. donc bu dee ba euh, dóor ñoom ñaar ñëpp defe naa ne am nañu ku ci nekk plus de 15 ans de carrière donc jàng nañu nu ñuy dóoree jàng nañu moytoo donc point faible bi donc moo di nga xam loo xam te ne mënoo moytu coup bi donc nga jël ko te je crois que li leen jaral ñu tax ñu dem extérieur war nañ ko mën liggéey c'est pas parce que la noonu lañu liggéey non dañu làq en arrière-plan ce qu'ils ont fait parce que du li ngay liggéey doo ko wane ne au jour nag ci la ñu xam vraiment l'attente bi nga xam ne tey moom la le monde sportif di xaar donc je crois que war nañ ko mën a génne bu dee bëri ñoom ñaañu ay ay mbërëntaan lañu mën nañu bëre bu baax a baax dañuy song dañuy dañuy pàqet dañuy yi donc dañuy cabaxal donc ku si nekk am nga technique de corps parce que technique aussi dafa nekk loo bi ngay jàpp nit ki war nga am technique de de contrôle soit nga attaqué parce que jàpp bu am na nooy jàppee da ngay défendre am na nooy jàppee da ngay da attaqué donc loolu lépp ay ay ay technique la nit kii day fexe nag andil sa part sa adversaire ay difficulté pour mën a dugg ci gàddam wala yow en ce moment même même booy dugg da nga protégé wu. mais pour Balla Gaye moom saa bu attaqué day enchaîner ay ay comme ay ay ay ay ay action mais tandis que Modou Lo bu jàppee bu jàppee day taxaw parce que donc ñaari animation la dafa am animation offensive ak animation défensive animation offensive bi donc su bu amee dëgg dëgg dëgg Balla la gën a arrangé bu fekkee animation défensive bi lay doon Modou Lo la gën a arrangé. Mhm. seen côté xeex tamit noo ko gisee. si côté xeex bi bagarre bi. Euh, pour la pour bagarre bi bon la bon xeex en principe boxe bi ma la nii. ñoom ku si nekk voyagé na ils ont des boxeurs même ici au niveau de Dakar am nañu ay boxeurs parce que nekk dañu ci ay salles ils yu nekk fii au Sénégal yoo xam ne donc ñu ngi leen di ñu ngi leen di coacher donc je nekk bëri nga autant de combats certains loolu un 24 combats je crois ku si nekk gis nañu seen xeex Balla Gaye xeexkat la Modou Lo si xeexkat la et puis avantage buy dugg dee xeex bu nekk daal l'action day xeex buy génn aussi day xeex. Balla Gaye aussi autant la même chose Balla Gaye bu ñu attaqué da lay attaqué day xeex yow boo leen jàppante aussi automatiquement am na ay réaction de contrôle am un répondant donc ñoom ñaar ñëpp seen combat je suis sûr que à chaque instant mu am un dominé le le un le dominant quand même war na nekk rester dans ses parce que tout le temps day am action coaction réaction. mais arbitre sifflé rek ñoom ñaar ñu dëggal seen bopp ci xeex bi ku ci nekk sam to ci say tàng di weccante ay kurpeñ. non là. risque bi ci kan la ëpp. foofu il faut que ma wax la ne ku ci gën a adresse am ci précision par rapport ak li ngay def parce que un coup bu amul adresse ak impact fi mu jëm ak fi mu war dal sur un point sensible du am effet. donc il faut am adresse am précision am calme à ce qui fait am au moins une maîtrise en soi pour mën a xool sa adversaire bu baax a baax étudier ko pour mën a dem ci dans ses actions. arbitre rek xeex amul ñu daw jàppante. bu arbitre sifflé xeex amul. waaw jàppante am bi. waaw mën na nekk mën na nekk ah faut pas dire que les gens euh, dañu jàpp ne xëy na dañu ñëw xeex mais dina am round d'observation dinañ xoolante am temps boo xam te nii peut-être une minute deux minutes pour arbitre bi owaat leen à la raison pour rappeler leen que alors dañu leen oo pour ngeen bëri donc je crois que foofu dafa am dañuy wax le temps préparatoire à l'action temps bi nga war a man a préparer pour dem ci action bi man naam aussi li ñuy wax le tout pour le tout ah comme li nga wax at bi ne salaamaaleykum rek sifflé ñu attaqué mais yow booy attaque te amoo ci certitude amoo ci wóor li nga xam te ne tey fa jëm loo fay fekk donc mën na nekk sa mbetteel donc l' effet de surprise ça fait partie ça ça implique les vivacités les réactions de vivacité mais attendez faut pas oublier que si yaa ñoom ñaar ñëpp dañ nekk des de des des des leaders de masse donc euh, am nañ capacité de muscle boo xam te nii ci seen yaram bu ko mën a attanul donc dañuy wax les les charges donc ces charges là mën na nekk les charges propulsives comme les charges explosives donc yooyu yëpp da lay permettre nga mën a exploser ci sa action da am na yow doo mën déplacer wu donc kuy dem xamal ne am nga explosion vivacité pour man a enchaîner action ku ci xaaral aussi war nga capacité am capacité de résistance pour le corps à mm-hmm. ku ci nekk sa dernier combat rek bu bëree kay Modou la gis nañ mook ba mook Lac de bi ñu bëree doon na ko jox wetam ñu gis ne doon na ko genre may may comme ni ko nit ñi tuddee dem na ba àgg ci ni. genre may maye maye. mais ah ok. dem na ba egg ci ni tànkam ñeme na koo jox. Balla non là là je suis d' accord là je parce que euh, euh, le fort de de Modou Lo day am habitude di joxe tànk seet des lieux parce que bëre. dafa am na ñoo xam ne dañu mën a bëri loxo am na ñoo xam ne dañu bëri bëri tànk même bopp am ñu koy bëri de parce que le coup day nekk force boo xam tey nit ko mën na ko utiliser pour mën a dégager son adversaire parce que boo defee benn passage au dessus jaar ci poxtaan li ko mën a dégager mooy sa coup donc soit à droite soit à gauche pour mën déplacer l' adversaire utiliser say loxo say levier mooy loxo bi wala tànk bi mais Modou Lo comme ni ñu joxee tànkam contre Gris Bordeaux def ko contre Eumeu Sène ko contre Lac de je crois que su amul vraiment matukaay bu mu war a jël bu ko Balla Gaye jëlee je crois que dina am mbetteel parce que Balla Gaye ku mën a bëre la ku xarañ la ci bëre. Balla Gaye technique la ci bëre parce que matière matière mu yor ci bëre je boo doon seetee ji mbër yi euh, bariwul. voilà je ne je mais dama ko reconnaître loolu parce que à chaque instant à partir de défaite combat mu def yëpp techniquement da ci génn et puis benn am ay différence aussi Modou Lo aussi lutte au sol bi muy def di leen ci yóbbu loolu aussi forum dafa am forme xam ne ni da lay jox tànk nga jël ko mu wàcce la bu la wàccee ngi dem au sol donc de day nokk li au sol mais lu wóorul ci poids parce que mën nga am quatre appuis mais moom à chaque instant day am trois appuis beneen kaw mu teeku ci kaw ci gauche mu teeku ci kaw. mais est-ce que digal nga ko mu jox ko tànk bi. Balla que digal nga Modou Lô mu tànk bi Balla Gaye. non non xam nga avantage joxe euh, tey boo doon football tey wala nga mel ne 1-0 nga ne kay dama am 1-0 2-0 déjà après ñu ko commencé bi Moustam. donc Modou Lo na jël matukaayam yëpp pour bañ a def loolu bu fekkee nag forme la dëgg-dëgg mën na ko mën na ko joxe pour que un temps ko parce que loolu aussi piège mais wóorul wóor ma ndomba ñu bëre wala am sama ñu bëre doon du ma ko diggal sama bër. Balla tamit gis nañ combat am ak Gris Bordeaux doon na dem ba benn instant muy jël tànkam di ko teg ci suuf. mu jël tànkam di sukk di attaqué di sukk di attaqué di sukk. non c'est parce que flexion. di def ay demi flexion waaw waaw flexion. donc mën na ne nit ki moo laa la expliqué sànq lu ñuy wax ci centre graphique de de la personne ou bien loi pesanteur bi da lay permettre yow nga am ay déplacement ay souplesse d' abord parce que boo amul souplesse parce que la masse la charge li ma la wax bu fekkee nekk na seeram bu baax doo ko mën bu fekkee ne génn ko ma am une certaine di travail en électricité am élasticité donc mën nga mën a def empisson di yéeg di wàcc di wàññi di yëkk di wàññi donc di déplacé wu di écarté donc yooyu lépp ci xeetu bëri la bokk Balla Gaye mën na ko Modou Lo mën na ko. <laughs> point euh, kii favori ñaari ko euh, mbëri kan moo ci favori. mais xam nga souvent yéen yéen am problème di demander favori. Mm-hmm. mais kii favori mooy ki daan mm-hmm. parce bi ñu dajee. Balla Gaye mais nag oh, moo daan loolu dama ci d'accord ak yow de parce que tamit yéen ay techniciens ngeen ñu soxla seen xam-xam. waaw yéen ngeen xam mbëri de A Z. soo leen gisee combat bu taxaw tey yéen mën ngeen di joxe favori. Mhm. mais des fois da ngeen di mere. non man avec man dama koy wax man je dis tout le temps la personne mooy favori parce que c'est par rapport seen confrontation mhm. directe. d'abord seen confrontation directe d'abord. kër kan moo daanoon Balla moo daan donc c'est le c'est pas un AOC2 mais challenge dafa soxla wuti donc kooku aussi mënul nekk favori ki wuti ki nga xam te ne moom moo daanoon quel que soit euh, son cursus quel que soit parce que boo seetee ñoom ñaar ci seen cinq derniers combats yu mujj Balla Gaye moo ci perte deux mais Modou Lo perte du combat mais yan la ci yan la ci gagné aussi aussi à part Eumeu Sène yi des yëpp c' est des décisions habituelles c' est normal parce que c' est des règles du jeu nit ki day respecté les règles et des gestions de combat et des dimensions de combat donc Modou donc côté boobu fort na ci xam na ko donc mais daaneel defe naa defe ci Eumeu Sène la la la donc ah, même avant Eumeu Sène c'était Codé Baye Mandione ou bien Papa Sow ou bien Paul Maurice donc yooyu yëpp ay xeetu bëri la ay xeetu daan donc tey Modou Lo mënul nekk favori ci kaw Balla Gaye parce que tey Balla Gaye bu ko daanee ça sera 2-0 bu Modou Lo daanee sa sera 1-1 donc la belle moo leen bu ko daanee nag laa bu ñu nee kan mooy favori booba foofu la ñuy calculer nag maintenant seen graphique seen parcours par rapport ak li nga xam ne tey bëri nañ ko peut-être d'ici 2 ans 3 ans kii di continuer daanu wala kii kii ñoo dajawaat une troisième fois donc foofu nga mën di définir exactement le favori type. dernier mot bi. Hmm? dernier mot. mel ni looy tàggatoo. ah ok xanaa rek euh, di ñaanal nit ñi jàmm di ñaanal euh, le monde sportif aussi euh, ci jégalu parce que war naa ko commencé mooy jaale d' abord di ñaanal Karim Seck Diouf balaa war a njëkkee parce que en tant que sportif parce que dama nekk ñaari volets yi. donc loolu loo xam ne nii ça m'a vraiment touché que mais def naa ko ci benn télé keroog le même jour le dimanche donc au niveau de la 7 TV parce que j'étais en direct donc wax naa ko mais sinon di ñaanal amateurs yi ñoo xam ne lii làmb la. donc sport la te nit kii war na am li ñuy wax lan la la la logique du sport xam exactement la mooy résultat sport soit da ngay gagné wala ñu gagné la wala nga machine donc bu ñu am vraiment trop de passion bay def nga xam ne du noonu. donc jàpp naa ne tey ñun sénégalais yi xam nañ ne stade bi ñu jëm nii ci zone bi mu nekk yaatu na am na espace donc ku si nekk ba làmb ji jeexee mën nga ñibbi sans difficulté pour autant que moom ay problème et je dis que euh, le que le meilleur